waxoon nañ leen ni premier jàkkaarloo bi la mu laajoon mooy ñu saral mooy ñu nuyoo xam leen ni combat bi nii la fa demee waaye tey bi ñu ñëwee gis ngeen beneen xar kanam ci Siteu bi ñu ñëwee gis ngeen beneen xar kanam ci Papa Sow te lu combat bi ñu gën a jege noonu lay gën a demee la tension va monter crescendo alors Siteu ñu bàyyi la nga nuyoo Siteu jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di nuyu Baay Faal di nuyu Yaay Faal di nuyu suñu papa yi di wax ne ñoo ngi sant suñu sëriñ sëriñ si biir Mbàkke alxuraan borom daaru ginnaaw boo nuyoo ba pare dañuy bàyyi Papa Sow moom tamit mu nuyoo Papa Sow le leader de Jambar Wrestling Academy ay ca papa ñu bàyyi la nga nuyoo d'abord asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa di nuyu suma adversaire di nuyu le parrain Mame Boye Diao la lumière s'il vous plaît di kilifa diine kilifa aada ñu ngi nuyu Sénégal ñu ngi nuyu àdduna di yàlla jàmm yàgg di nuyu presse bi di nuyu assistance bi yëpp bàyyi jële ñu nuyu ziar borom galañ bi di ziar bàyyi dem ba wasalaam alors combat la dafa am lu la jaral te tey wane nga ko keroog dafa am xar kanam boo indi gars yi ne ah da xëy dafa changé léegi mais tey da ngaa ñëw tàngal sa gars yi bi ñuy dugg si dama bu xaayee waaw luy bu xaayee ñor bu nagal loolu mooy bu xaayee rek ñor yaa ngi combat bi dañoo gis tey nga indi xadar indi beneen xar kanam papa ba nga xawoon a respecté mel ni ku ko ruus tey nga ñëw bëmax ko bund xataal ko wane beneen xar kanam loolu day wane ni Siteu combat bi dafa am ba toll. waaw li may wax si loolu sax balaa ma si avancé damay nuyu suñu mbokku séeréer yi. laa fóole séeréer la mi sim naa noonu laa fóole séeréer la. mihiwano yaha fole seewe yiɗannuno ɓayi on imin on dannu on dukor mum leya noon umana woytin andum slogan ɓe lenge goori jaaɓe cikkoori pula ɗuɗon kino muɗuma wofda lima waxoon si lollaane lima waxoon ci lollaane lamb lamb ku ma fekk sama droit sama territoire lamb wallahi boo ma rus moom fii mosuma laa woo lamb nag laa ngi def oo ma lu ma koy wax papa tey également dama gis beneen papa bu mel ni depuis que jàmbaar Wrestling Academy taxawee papa dafa am lu nga xam ne daf ko ko a wone parce que mooy nekk première sortie bu leader bu écurie boobu mu am nag loo si bëgg a am loo si bëgg a wone sa diggante ak Siteu loolu lan la lu tax tey papa ñëw indi xadal indi xumb indi lu nga xamante ni ñu bari gëj nañ ko gis ci moom waaw sant yàlla rek di ñaan yàlla jàmbaar Rossine académie bokk ci écurie yi gën a mag ci écurie yi fu écurie eggaloon rek yàlla fa yàlla eggale bon di wax rek bon ndax la quoi combat bi duñ koy euh, na ay carré affaire affaire jàmbaar ci combat bi. samay xarit ni foofu laa sommee saabu ko jëloon sax combat aw ma lenn ci wax lu dul jëf aw lu may wax kii aw ma lu ma koy wax aw lenn lu ma koy wax. mais moom nee dafa bëgg a relancer wu te ku bëgg a relancer wu. naa la loolu moom loolu moom relancer wu la bëgg yow loo bëgg. yal na ma yàlla may ndam di ñaan kilifa diine ma man taalibe koom. mais papa yow tamit gis def sa croisé def gauche def ay crochet yu wóor a wóor mu mel ni le papa explosif bi nga xam ne dóoroon na fi mbër mu daanu moom lañ dara gisaat wala boog waaw sant yàlla rek dañuy uti rek ñu ko yàlla mayee rek ñu jël incha allah sur la préparation papa nan la waajalee combat que ki ngay bële dafa njool te yow ndaamal la waaw ñun ñu ngi liggéey selon adversaire bi rek ñu ngi koy visionné di xool si te li mu mën di liggéey ci loolu mu naam balaay boobu yàlla dina defal jàmm incha allah waaw ni may xoolee rek laa may xoolee man moom géej laa waxoon naa la man moom géej laa indi sa paap wala ñu indi sa paap yooyu taxul ma jeexee waaw mais comment bi aw ma len len len len len li may wax lu jëf di woo képp koo xamante ne yaa ngi si yaa nga jàppale si ku mel ni ullu mel ni ki nga xamante ne sama xarit képp kuy tàggi ndax yow Seck Serif seen loxo laa koy def yow Abou Diansène samay gaañ laay woo ak Serif fukki dërëm seen ñaar naa ñëpp maa ma warul ma tagalu ma dara parce liggéey liggéey rek alaaj maa ne jaam sabab la mën dina liggéey lu mu war a liggéey lépp yàlla mi mu am ndam di maye ndam yàlla ni yàlla may si ñun incha écurie bees bi yàlla na ànd ak ay ndam ay ndami ndami ndami ndam lu ñu koy ñaanal yàlla mooy maye kenn du maye pour yàlla te yàlla it ñu ngi def li nga xamante ni pour ñu may ñu ndam yàlla ñu yàlla def dolli sutura may ñu ndam la fay incha allah bon d' abord li may wax rek mooy làmb dara yàq ko lu dul violence violence làmb mooy de communication mën tawee su làmb bu demee na ba sponsor yi retiré wu dañ fóotaat ci koñ di xew fan yi euh, arène nationale kenn rafetlu ko nan xoolaat suñu toogaay jéem a liggéeyaat quoi ñun amuñu lu dul làmb bu ko yàqee suñu bopp lañ yàq mais spectacle bi ci biir géew bi tamit. waaw loolu yeneen la yéen a a a mu nekkoon mosu faa jóge. waaw loolu ñëpp xamee nañ ko bu bàyyi démb rëkkee nee bàyyi jiw neex làmb jiw neex na làmb neex na. waaw loolu laa la a wax làmb ji du nekk làmb ju yomb làmb ji làmb du dàq làmb du dàq loolu Pa Abdou Fall lu mu pare na ko yokk di nga li ma la lu mu pare na ko yokk sama tonton maa ngi koy siyaare te bakkar maa koy siyaare di ko waxi làmb maa koy woo di nuyu sumay dëkkandoo waa église bi mbokk chrétien yi maa ngi di woo di di leen di siyaare di ñaanal bu baax di woo ñi nga xamante ne tey ñoom laa tuddee sama man suñu ko maanaam xeet yi dafa daje mais làmb ji làmb wala wala yi la di wax rek ne bon ñi ñu woo autorité parcelle yëpp comme li mu ko daan waxee chaque rek Moussa Sy Amadou Ba tous les autorités rek ñu lay woo di profité di woo Abou Gueye Serigne Thiané Faye war a may jëy grand Djily Niang comme d'habitude rek xool karo maa ngi lay yow bu baax a baax di woo grand Oscar leen wax ni fa yéen jàpp foofu ak li ma la mën a wax wax mooy. ma la mën la mooy. mooy. kon tale jàmm si tam jël sam sax fa dem Mboro sama fan si yëpp maa ngi di woo. di woo waa Jowaat waa Joal waa Kaolack maa ngi woo bàyyi ma kenn kon Touba maa ngi wër ñëpp di wax ne bis bi dafa nekk bis boo xamante ne yow kafewu ma ko fooyewu ma ko ku ko nar a na ma ci lu nekk koo jaral lu ne kon man mi di xale lan la ma war a jaral man mi di xale lan la ma war a jaral man mi di xale lan la ma war a jaral tey bu ma jaralee benn jaral na ma ko téeméer parce que akura billaahi dafa ma jëlee wu ma ci dafa ma sa waaye di yéegal liggéey bi nag nee na yow mi mag lu mu la jaral jaral na ko lu ko lu ko papa combat bi lu mu la jaral waaw di profité rek. waaw bàyyi profité bi. di woo Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM grand Yves Diaw bu Fass maa ngi lay woo ci combat bu baax ak grand Mbaye Diop président Fass Benno waaw di leen wax ne mini sportif mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar di nga am fraîcheur de ah dégg nga de mag muy teel a lu baax demoo dikkoo toxoo boo fenkoo ndaw ci géew dina xam ne ah xale boo xamante ne nag yow li nga bëgg da xam fu mu nekk ñëpp nee la mënoo fa dem nay raam di toog di di def di jéem ñu métti xam-xam yi taxaw ngay xuus di jaar di tëdd heure lekk bàyyi fa jëmu ko fixé fowul kafuma kaful affaire yu solo do ay yooyu ngeen di wax ay sita luy génne man damay naam wallaahi njom isi daa dama lay wax si njom isi daa njom garama luuxaan na séeréer garaam heefin tus heefin tus o hek lukaale carol na te naam kaa anona dara amoon ak moom. séeréer wax ak ma dama moo bu demee séeréer yi nga xamante ne gëmuñu seen bopp cent pour cent ñu nekk li ma ko wax lan la. wax séeréer yi bii li nga xamante ne bii séeréer yi mooy daw si yàlla. jaadu dama lay wax tuuti pour ma expliquer la sama histoire. waaw man man doomu Jowaar sama yaay Jowaar la dëkk. joor waa man joor waa man man su ma si côté yaay a bëree su ma bëree si côté papa damaa war a bëree mais yàlla dafa def man Dakar laa yaroo fii laa màggee moo tax ñu laam naa si ma bëree mais yàlla a def yàlla dafa waroon a def ma am si bëree xam nga sama nijaay yi dafa am baax mais dama si amul sens si man bëri laa ko bëri ayca yëgal leen tuuti yóbbu ñu fulaadu